ndax moom bu yemoon na caq jàngale na fa rek amaa jëmmiñ ci bari duñ ko xam waaye daana teew ci daayira yi man mi waa xam naa ci daara Miftahul Sahada seen ngontul maam jaara chaque mercredi moo ngi ànd ñoom di leen waxtaanal di teg ci yoon bu ko yoon kat mu yem fa mu nekk waaye yëg gi nga xam ne yëg ne ab taalibe la te ñoom ñooñu ay muy saak ngoon mu dem di xeeñtu mbiru sëriñ bi loolu moo ko ci yëkkati kon bu ko defee moo la ñuy daal jox kaddu gi mu joxe ci ay kaddu cant yoo xam ne danañ ko jëmee ci bis bi wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalina wa maulana muhammad ibni abdillahi wa ala wa sahbihi wa ala man iqtafa asaarahum ila yawmi ddin wa radiyallahu an cheikhina wa wasilatina ila rabbina maulana cheikh ahmad bamba xadim al mustapha al makki ko defee mbokk yi ñu ngi ziyaara ñëpp di jéggulu tam bu baax ci Eh, kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci kanamu kilifa yi di jiital ci nuyoo beeg ziara bi saaxibul fadila cheikh mouhamadul taxa yàlla na ko suñ boroom yàggal ci kanamu taalibe yi ba li mu naal ci naa yu rëy ci liggéeyu cheikhuna cheikh xadim moom ci lu koy njortam te bokk ak taalibe yëpp kenn na leen ziara mboolem ñi fi teew ñëpp di ko ziaratam baax kilifa gu tedd gi teew ci jataay bi ñu ngi koy nuyu di ko jox wàcc waayam di ñaan suñu borom defal ñu tawféex defal ñu taysiir di ñaan tam kin fi tax daje di ko ñaanal yal na yàlla defal ko saadatu daarayni muy saadatan la saqawata baadaha barkeb Sëriñ Tuubaa xasida yi kon Seydina Aliou da ngeen a baax rek waaye daanaka lépp daanaka matu ko ndax ñun moom ak taalu bi dañoo ëppal lépp solo daanaka kon xam naa dañuy yemale foofu kàddu yi rek incha allah di jox suñu mbokk al oustaz ko defee mu eggale di des wasalaamaaleykum wa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على أشرف قلق سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى خديمه خادم المصطفى wa xudwatihi l azim maam Cheikh Ibrahima Fall ixwata al aiza asalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki dëkkandoo yi ginnaaw bi ñu santee suñu boroom jullit yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul suñu yaakaari tey ëllëg di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall baabil muridina wal muridaat ñi ngi nuyu mbooleem ku teew ci jataay bi ci kilifa yi muy góor ak jigéen mag ak ndaw di jiital ci nuyoo boobu sëriñ Cheikh Mbay al ak sëriñ Bachiru Mbay di nuyu boroom dëkk bi ak imam bi di jaajëfal Oustaz Murit nga xam ne suñu xarit la suñu wëllëre la nga xam ne ànd nañu liggéeyu Cheikh Mouhamadul Murtada bi sanawaat adida ñi ngi koy ndokkeel di ko ñaanle yàlla ci way juróom yi nga xamee sa ni yàlla dafa dogal mu jiitu dem barzaq yàlla na yàlla yokk leeram yàlla na ko yàlla teral ca barzaqi maam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul yaakaaram naka noonu suñu mbokk mi ngeen doon jàllale wax dëgg yàlla muy Serigne malik yàlla yàlla yokk leeram ci barke yonte bi alayhi salaatu wasalaam jox ngeen ko kado boo xamee sa ni kontaan na ca loolu fa mu tëdd kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen sant ci liggéey bi nga xamee seen moom nga nekk muy liggéeyal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wax dëgg yàlla tey bi ñu jàkkaarloog seen jëmm yu tedd yi am na leen lu jàngaat ci ñun suñu cëg taalibe te loola fi waaye mën a jaay ci àdduna di ko fi bàyyi ba mu des ak taalibe ndax ak taalibe dalay fekk ci biir bàmmeel di la xettali ndax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul xam ngeen ni kenn ku ci nekk xam ngeen ni mën na ñi ñimewul bor daamuk pay te wax na moom Cheikh Ahmadou Bamba yéen ñi nga xam ne yéen tuddee seen bopp xidmatul xadim Cheikh Ahmad Bamba wax xam dafa leer dafa xam ne inna allasina saarau ila xidmati fa lahumu diyaar wasal janaan Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul nee na ñi nga xamee dañoo gaawantu di ma liggéeyal jamono yu man doon am nañu ay mboy ci àjjana kon yéen raw ngeen tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyati te yéen a ngi ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy xayrul anbiyaay wa xaatimu nabiyina daal di wax ne xayru naasi xaadimuhum ki gën ci nit ñi mooy ki leen di liggéeyal kon jëree ngeen jëfati yent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ngeen ji bi def Cheikh Ahmad xaadimu rasul da ko ne dar muy jëm ak takk ndeeram dal di wax ni moom xaadimu rasul baana li kulli man lahu maaqulun anna wasilatuhu wa rasul kon rasulillahi ak ahmadul xadim jëm ak takk ndeer la kon ndokk bi nu yàlla dimbalee bañ ànd ak Cheikh Ahmad Bamba xaadim rasul kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm kado bi ngeen jox oustaz jox na ko ñun ñëpp tey muy ki nga xamee sa ne ëllëg yowmal ak akbar ku yàgg ca pénc moom moo tax nga nga yàgg fa ndax di ngeen gi ko di muy maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin wal muridaat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi muy woote woote mburéy boobee fanweer ak juróom-ñeent ñoo fa nekkoon Seydina Omar ibnul Xattaab ñeent fukkeel leen Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul bi muy wootee woote mburéyam bii fanweer ak juróom-ñeent ñoo fa nekkan maam Cheikh Ibrahima Fall ñeent fukkeel leen maam Cheikh Ibrahima Fall doon koo xamee sa ne aarifu billaahi la xaafis quran la woon peegan na boole xam-xam yëpp jàng na maanaam jàngale na nja Fall juróom waaye bi mu gisee Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul genn bëgg dong la am muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul daal di nëpp xam-xamam bépp daal di ne maanaam ki nga xamee seen man naa àgg na ci yàlla te man maa àggale laa naan dan na muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul kon jëmm jooju gi ngeen jox euh, Serigne Murit boo léegi yowmal qiyaamati akbar ba yàlla teewal dënd bi ñëpp teew boo ëllëgee képp koo xam ne da ngaa noonu woon Cheikh Ibrahima Fall doo gis àjjana ndax maam Cheikh Ibrahima Fall na boo léegi yamal ak akbar ba suñ borom di fay wax di bàyyi jëf kon jëfa takku kon yéen ñi nga xamee si yéen a ko jox imaam ndax oustaz murit lu jafe ci oustaz xaafis xuraan la ku mokkal alxuraan la lugal arabiya nu ko neex la koy wax yi muy tagg cheikh euh, turu yu maam Cheikh Ibrahima Fall yoroon mu man ko lool waaye nag doon koo xamee sa ni kuy kenn Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul la te Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul dina man ñett yi maa ci man fop maa man ci àdduna ji ñu nekk man ci biir géej gi ñu nekk man ëllëg yowmal xiyaamat akbar jënu jëm ni bu ëllëgee yowmal xiyaamat akbar sama loxo ba tuut bi ku mu séddul da ngay fande kon ñun li ñu am wax dëgg yàlla Cheikh Ahmad Bamba diggewul ci kaw suuf ci biir bàmmee la diggee lan moo tax ñuy jangeen jangeen yi ku faatu ko nañ yóbbu la Tuuba am na yaakaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ngeen jël seen néew di leen yóbbu fa am yaakaar moo tax ku faatu ko ne ak foo mën a ñu yóbbu la kon yàlla yàlla dimbali yal yàlla jàppale yàlla na yàlla aar yal yàlla sàmm ñu fàttali ko bis bii tey kenn ku ne doo ci mucc bis la boo xamee se ni mbetteel lay dikk te la jëleen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca madinatul munawwara jël Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul jël sëñ Sidi Maxtaar jël ñu baax ñi duñ fi bàyyi te buy ñëw mbetteel lay dikkee kon kenn ku ci na ko waajal sa bopp saa booy tëdd na nga waajal sa bopp ba jàpp ne tey jii ngay faatu ndax bis boobu du jaaskat tey lu waay def woon ci biir bàmmeel doo ko fekk kon neen góorgóorlu baax suñ mbokki jigéen ñi nañu góor nañ góorgóorlu baax ñu góorgóorlu suñ diggante ak suñ borom waaye ñu góorgóorlu suñ diggante ak suñ borom kër yi ndax bu la sëriñ bi gërëmee te sa borom kër gërëmu la doo am yàlla doo am yonent doo am ngërëm sëriñ tubaa kon neen góorgóorlu baax fi may jeexale ngeen baal ma kàddu yi soxna jaaratullaahi Buso kenn ku ne xam na ni moom bi muy ñëw kër Cheikh Ahmadou Bamba xaar euh, Mamour Anta Sali dafa am lu mu jaayante woon bi muy waaj di dem ñu ne ko waajal mu dem jàppi ba ñëw daldi ubbi kaamil bi yem ci aaya ji mu jooy aaya bii dey maa kaana muhammadin aba ahadi min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatimi nabiyin mu jooy bara ngooñ faste ñu ne ko looy jooy mu ne aaya bii moo ma teema am fi ab yonant waaye dinaa fi am koo xamee se ni dina am lu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ko nekk moo daan toggal Mamor Anta Sali radiyallahu anhu laax bi mu daan ndékkee ak kafe am benn bis maam Mor Anta Sali ni xaaral ma natt ko ndax jigéen yenn saa yi mu ngistalu yenn saa yi mu rëy rëylu dinaa xëy nag takk sama fas dem ca tóokóor ba su fekkee fekk si na ma fa ma xam ni yàlla rek a tax su fekkee fekk si ma ma xam ni ki doon ngistalu maam Mor Anta Sali di war fas wi xëy dem ca tóokóor ba soxna jaare néew ko foo jëm daal di dem génne waxandaam wa nga xamee sa ni tey bu doon tey suñ jamonoy tey ji armaalu si batan la mu daal di koy toj fas yéene togg laax bi fas yéene tàngal kafe gi topp tàngu membre ante sali di ko topp di ko topp di ko topp ba ca tóokóor ba mun ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbàkke bu ñu xaman da ngay teel a jóg ñu teel a jóg defar laax bi nga xewlu ci mbàkke ñoo ngi jéggulu daal di yenn ku daal di jël satala gi ni ko defal dékkal ma raxas nga raxasu mu daal di raxasu ba pare mu daal di jël cufaay li boole ko ak soow mi daal koy jaxase daal di ràcc laax bi daal di ko ni ko bisimilaa xewlul Maam Mor Anta Sali daal di jël baaraam bu tedd ba daal di koy cëpp ñetti cëppi di ko suur naa mu ni ko bu nu xamaan ni naaje gi moo tax doo mën a xewlu ñu teel koo indi mu ni ko biir kat ñeenti kontaante munu ci am damaa kontaan sama diggante ak suñu borom mi ma booleeg yow kontaan sama diggante ak rasulullah yi kontaan sama diggante ak say bokk waaye nag kontaan sama diggante ak yow mii maa ngi lay ñaanal doom joo xamee se ni nag la tàmbalee fa nga jógee woon ca kër ga ba si fii lu toll ni topp euh, fépp suuf yu toll noonu na ko topp soxna si ni ko amiin mu ni ko maa ngi lay ñaanal doom joo xamee se nii ku munta séparé suukar si ak ak ak soow mii doo ko mën a séparé rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko amiin mu ni ko maa ngi lay ñaanal doom joo xamee se nii maanaam ni di leerale noonu lay leeraate muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ko jigéen ju ne war naa góorgóorlu ba am ngi digal borom këram wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi jàkkaarloo ci photo bi Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëm yàlla sunu borom yàggal ko fi lool ak mbooleem Baye Fall yëpp di ñaanal borom daara ji walla boog du ko nangu sax dañ naan jëwriñu daara ji muy suñu Aliou Jonn yal na suñu borom yàggal ko fi kenn ku ne boo xoolee ci moom di nga xam ne ngërëmal yàlla rek a wóor te ku ko suñu borom jox la di siyaare tam magi taalibe yi ku mel ni Baye Mbay Jonn ak Baye Yuusu ñoom sëñ Alaaji sëñ Modou Xaban sëñ Njaam Jonn sëñ Njóogu Jonn maa ngi siyaare ñëpp di ñaan ñu yàgg fi loolu te wér ñooñu yaakaaruñu woon kenn ku dul seen bunt bi leen Sëriñ Tubaa boolee loon muy Cheikh Aliou Mbaye moom lañ yaakaaroon ba ni fi jógee ba niñ toppee sëriñ atteex mi fi mujj ah, sant nañ bu baax a baax ki ñu fi dajale itam ci guddi gii ku dëggu la woon ku baax la woon ku yaatu la woon itam ku amoon force ci lim nekkoon muy gëm-gëm gu wér a wér a wér gëm sëriñ bi te yemale ko dara muy sëriñ Abdoulahi Diome ñoo ngi koy ñaanal sun borom terte ko ci àjjana ya gën a kawe te bu fekkente ne bëgg sëñ Tuubaa rek kay tax nga am lu wér a wér ca ëllëg loolu moom am nañ ci yaakaar bu wér a wér amuñ ci sax sikki sàkka ci moom di ziyaare tam ak njabootam di ko tàmbale ci sëriñ Ateex ak murit mii nga xam ne si tay moo taxawal lii nga xam ne dëgg rek kay dëgg aw gi mu awoon ci dëgg moo ko may lii mu am tey di ziyaare ñoom sëñ Mor Jonn sëñ Làmp ñoom ñépp ba ci Seex moom Mamadu Mustafaa bàyyiwuñu kenn ñoo ngi siyaare tund wépp daal wax dëgg yàlla di wax ne itam lii ngeen def dara gënu koo rafet balaa loolu sax may siyaar sama xarit sama soppe Cheikh man Basir moom sax dama noonu dama ko tudd waaye nag mënut ñàkk ndax dafa def lu am solo yàlla sunu borom dañoo boole ñi bokk ba pare wëlbatikuwaat eh, di ay xarit tey mu gën ma fopp itam ndax boo ko xoolee di nga xam ne ku ragal yàlla la loolu mën naa koo seede ci moom te mënuma koo seede ci sama bopp lu wér la barke sëñ Tuubaa di siyaare tam mbokki tay bay ndax taalibe yi ñu ngi nii toog sëñ euh, borom daaru Thiam mi nga xam ne moo leen jiite ak sëñ Samba Thiam ak Cheikh Mamadou Basir Thiam ak sëriñ Njuga ñoom ñëpp àndandoo nañ pour ñëw ci bis bii xam ne lépp benn la lii dafa rafet trop ginnaaw ba loolu itam ki nga xam ne su ma ko tuddee tudd naa sama bopp muy Mouhamadou Fadal mbay moom sëñ Atex su ma su ñu fi nekkul woon mën naa taxawee lii léegi lay door a agsi euh, léeg ma dégg ko fi nit fekk na ma Dakar ne ma sëñ bi la sëñ fàlloo nga fa barki Seexul Xadim ak waxtu wi ma toll yàlla bu ma dellu Tuubaa dama ci am dama ci am mbégte ma xam ni fii xiruñu woon ci kenn ku dul sëñ Atex Mbay kon bu fi doomam nekkee rek loolu sant yàlla wala doonte sax dafay jaar yendu sax tubarkàlla kon loolu ndimbal la ab taalibe bu dee gisub sëriñam rek wala lu bokk ca sëriñam loolu day am lu muy def ci moom ku ne ñaan nga yàlla am loolu kado euh, yi doon joxe léegi dama cee gis lu am solo muy sëñ Muxtaar dafa yëkkati jox sëñ àll yi nga xam ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy al Muxtaar mu yëkkati di jox Seydina Ali te Seydina Ali mooy xale bi jëkk a dugg ci lislaam lu mu ko jox sujaada ne ko jullil kon mbir mi dafa am lu ci feeñ baaxi nañ ci ñu wëlbatikuwaat yëkkatiwaat photo baabul muridin ne ko jàpp ki ñu tuddee murit te dajale ñu fii <laughs> am de waaw mbir la waaw maanaam lu lu lu leerut baaxul barke sëñ Tuubaa day dëgg rek bu dul woon dëgg du demee noonu waaw ñu wëlbatikuwaat alxuraan nekk ci sunu wet xasida nekk ci sunu wet kon bu ñu tiit dara kon am nañu texe tey ak ëllëg te li ko firndeel mooy am na loo xam ne dangeen koo def te xam naa sax yëguñu ko ci sama ginnaaw takk nañ fi ijxal rujox yi ilaa xaw mi sahadatana wala takk fi naa yow ma joxe xalq niiraana sëñ Bamba ko wax sama dellu gi may delluwaat ci sama nit ñi sama borom na nga ko def mu doon seenu texe te nga musal leen ci bis bi nga xam ne da ngay dajale sa xeet sa sa mbindee fi na nga leen musal ci safara bayit baa ngoo ginnaaw ba mu liggéeyalee ki nga xam ne sii moo ko defal loo xam ne sii kenn mosu ko koo defal ci àdduna kenn mosu koo taggee noonu muy seexul xadim musta tag kenn musta taggee yonente bi lu toll noonu benn rek lam yëpp lam yabdu misle Moustapha Muhammad sirran wa jëhran fil baraya sammat amatul benn mbindeef bu mel ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wee bayit rek dafa doyoon sëkk mu wëlbatiku waat amaat lu lu lu doy waar jël alquran moomal ko boppam liggéeyal yàlla ba am lépp jaawartu ah bil furxaani rabbiyal muin <laughs> am de <laughs> malaktu nafsiya wa sax saxtu laani ah yéen li ngeen def ci baas bi sax xamuleen yàlla xam na ko dëgg la nag lisaanu xaal day wax mooy mooy mooy dikkee noo xam ne si mooy mooy tartib te du ngeen xam ne jur a noonu sëñ bi maa ngi siyaar bu baax waxtaan wi am na solo trop kon nañu gën nañu gën a góorgóorlu sëñ bi war nañu yoon wéral la sëñ Tuubaa dafa mas a tomb ñu euh, ginnaaw loolu nañ moytu àdduna topp àdduna mën naa tax a nit a suux dégg naa léegi ko fi wax ne ñii kenn du leen xool di leen nattable nit ku nekk la ngay nuru nurulu loola rek ngay nuru boo boobu bunt dafa tëje woon kenn benn wàlliwu suñu borom mayu la ngir nga mën a àgg ca foofu mennum sëñ Tuubaa dong nga yëkkati xalimaam ni sahidanillaahu bi anni waahidun min ahli badri moom dong nga sañ wax ne ci waa ahlu badr laa bokk kon kooku ku ànd ak moom sam xel war naa dal bu wér a wér yal nu yàlla def ay murit def ñu ay saadix kon soxna yi nañ góorlu ci boobu boor ku munta euh, nes ko waxe ku munta doon gayndeet war a fexe say bët xonq am déet góor góor la mooy tax a doon góor waaye jamono jii ñu ci baree bari li ñuy sëye mooy pexe rek te amul njariñ pexe mi mooy lan nu ma nootee sama jëkkër ba moom ko wallaay da tàbbi ci kër mu leer na ne da ngeen ma jéggal nag waxtaan wi la rek damaa mënta wax lu dul dëgg waaw da ngay tàbbi ci kër dangay ngay tàbbi ci kër mu leer na ne ku góor kii fi nekk nga gis ko ni muy doxe da lay leer ne kii dañ koy manipuler daanaka tuuti rek a ko wuuteloog jigéen ji mooy woddu ab sër te dara waralu ko lu dul ay pexe mu dem ba noonoo ak i bokkam dara waralu ko lu dul pexem jigéen te bu ñu fàtte mukk suñu borom moo ne woon inna kaydakunna asiim seen pexe rëy de ñu ngi nii toog nañ ma jéggal nag yàllaa leen ko wax ci alxuraan inna kaydakunna asiim dëgg la nit ku nekk ina ina kay ka sari wun la la dégg kon nit ku nekk na nga fexe ba yilif sa jëkkër man naa nekk de waaye na ko saw yiw yilif ku ne sañ ngaa ñaanlu ne yàlla nag ma damaa bëgg sëñ bi nga ñaanal ma sama borom kër bii ma déggoo ak moom waaye jël lu xaraama xaraam lu bona a bon nga fas ko yéenee jox sa jëkkër defal ko ko ci lekk mu naan wala boog mu lekk ko ñu bare nga ci armeel yi ay nooba leen fa yóbbu barke sëñ Tuubaa lu mat a moytu la nañ sëy te yàlla tax te kuy ñaan lu nga dem ci alxuraanu karim ñaan lu ñu ñaanal la te yàlla tax wala boog lu nurook roog alxuraan sëñ Bas walla sëñ Fàllu ah man ka dama bëgg nga ñaanal ñu kër gi kër gi jàmm am ci ñépp ñu amandoo jàmm waaye nga beddi sa jëkkër kese ne na topp ci sama ginnaaw am na ñoo xam ne na na topp ci sama ginnaaw waaye tamit am na góor ñoo xam ne loolu a ñàkk ci ñoom parce que jigéen xamut lu dul que tàllal loxoom nga teg ci su ko tee gis nga lànk bañ ko koo jox moom tamit mu fexe ay pexeem ndax kenn du nay ci li nga dëkkal jigéen moo war a nay waaye góor warut a nay góor bu nayee rek musiba am ndax ñoom jox koo xam ne si joxe dañ ne la jox ko noob gi gën a gaaw mooy mooy na sa loxo di dem ci sa poos rek boo ko defee rek jàmm am sa diggante ak moom waaw kon ki nga war a dundal dëkkoo ko jàppale ko seex euh, benn kilifa dane koo xam ne day fàtte démb xeeb tey yàkkamti suba ku ne xam na ne matut ñoom matuñu dañ leen di mottale seen moroomu jigéen sax mënuñu koo jiite julli kon nañ nañ nañ leen di commu communication nay am ci sëy bi di waxtaan di leen delloosi teg leen ci siraatal mustaqim ndax jàmm mën a am waaye kër yu bari tas na dara waralu ko lu dul yenn yi ndax sëyatuñu te yàlla tax ku ci bëgg a doon jigéenu óorul ay ni ëllëg ah ba ku bëgg a bokk ci waa óorul ay ni ëllëg ndax lan kenn ku ci nekk ñaan nga yàlla doon ko am déet la la koy may mooy topp ci ku topp ci yàlla ak yonent bi mu di la digal lu baax di la tere lu bon nga sax ca fas yéene liggéey jigéen ju ne saa boo sëyee na nga gestu sa njaboot nga xool kenn ku ci nekk rek di xam noo nekkee woon ak bàyyam sëñ Cheikh Fall Baye Góor dane mbooloo mu ma toog ku ma fa ne jàpp loxo ma xam ne sa ndey doon sëyee waaw jox loxo rek mën naa laa wax nu sa ndey doon sëyee daal indi kii daan ne ñu ne euh, buur siin ku mën doo fen ku ne gis na ko ku ne dégg na ko saxaadatu daaray ni daa mel ne moo ko fi am sax ci buur yi ndax moo seedeel sëñ tubaa la tax sëñ tubaa may ko lam ko may ba ci ak màggalam ngay gis ñuy jàng ay xasida moom laa ci xam man naa am yeneen buur am nañ ko waaye man moom laa ci xam ñu ne waajuru buur siin wu góor moo ne buur siin day moo ne buur siin day yaayam su ma ko soxla woon sax ci ëtt bi sax mu jox ma bopp surtout foofu kon nit ku ne soxna su ne moo mën a góor góorgóorlu bàyyi njëga jóob bu ngeen ko dégloo xissa boobu sëñ Seex Faal moo ko ko doon nettali bàyyi góor yàlla na fi yàgg te wér mm, su ngeen demee ci ay kasetam di ngeen ko ca dégg mu wax ni sëñ bi wax na ko ne ko am na koo xam ne jigéen la woon dafa am ñaari doom taaw bi munta liggéey ba am dara rakk ji nag la day dox bu baax xéewal yi di wàcc bu baax ci moom bis nag taaw bi muñ ko mun mënu koo muñ mu ne ko yaay toogal ma wax la waa damay laaj lan man saa bu ma xëyee mënuma ba fexe am dara su ma bayee du ma sama mbay mi dara du ci baax te sama rakk ji daanaka damay dimbali mu ne ko toogal nga mu ne ko ba ba may toll ci sama ndaw sa baay damaa bëggoon ma bañ waaw man mu defi pexe ba takk ma man tam ma di ko bañal loola ca loola nga judd mu ne ko bi ma ëmbee sa rakk ji nag bi bi nga juddoo nag ba pare nag ci laa fas yéene nag takk sama laxasaay nag fas ko yéene bëgg nag sëyal ko nag ci la sa rakk ji ñëw kon jigéen moo man ne tey ma jur wàlliw waaye tey ma jur leneen kon nañ ma jéggal maa ngi jéggalu bu baax damay soññee rek ngeen jéggal ma nag wax moo demee noonu ñu bëgg rek soxna yi góorgóorlu bu baax ndax ñooy boroom kër yi ndax ñoom góor ñi dañuy dem ñoom ñoo fiy des kon fas euh, takk leen seen digg te fas yéene jur lu baax te yàlla rek tax ak yonent bi bu ngeen ko defee rek di ngeen am di ngeen bëgg jaahi nabil Mustafa yàlla na sama boroom defal leen jàmm defal leen saadatu daara daare ni yàggal leen ci sunu kanam ndax euh, alxuraan da leen a junj lu baree bari moo tax benn waaye daa ñëw ci benn sëriñ ne ko man de damaa gis Euh, suratu jigéen dafa am jigéen te gisuma fa góor mu ne ko góor a nga fa sax waaye nag yéen jigéen ñi seen melokaan a tax ñu di leen fa tudd lu bari waaye nag yéen ay lépp ndax ku fi baax yéena ku fi mel ne ne tam yéena ndax musuma man mii toog li may nekk nekk ndaw musuma dégg ñu ne ñu xool nit ba ne ko abay saan yërëm ko ba ne ko abay saan déedéet anday saan rek kon yaayam waajur wala ñuy tudd bu jigéen ma <laughs> am déet <laughs> waaw waaw anday saan rek ngay dégg de waaye abaay saan de doo ko dégg doo ko dégg mukk waaw kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa Sëriñ ñu yaakaar kenn ku ne na ñëw fii jox ko addi Sëriñ Tuubaa maa koy sàkku ci barkeb Seera Fall barkeb Cheikh Moutou mi ñu yaakaar kenn ku ne na ñëw fii yokk addiyee Serigne Touba ndax ñoo fi Serigne Touba kat li ñu fi waxal wax dëgg si yàlla kenn mënu ci dara suñu xel lañ dal ñoo leen jox ko addiyee Serigne Touba ñoo ngi koy sàkk ci bokki taalib yépp kon na na bar bari balaa Serigne Mbaye ñaan kon na bar bari balaa Serigne Mbaye ñaan Mmh. Mmh. sant waa dëkk bi di sant suñu waajur maa ngi sant yàlla di sant sama ñaari waajur di sant sama borom kër sëriñ Babacar Deme dafa am si benn thème bu ñu dugg wàllum soxna jaara Buso loolu dafa am solo lool te ni ñu ko waxee sànq ñu ne ñaar fukki dëkk ak benn muy njaafuñ ba yindaan am na loo xam ne yaakaar naa ne buñ ko dégloo fi jugee fi jëfee ko dëkkoo am naa yaakaar fi yeeg at déwén incha allah tegaat ci beneen at muy ñaari at leneen lañ fi gis lu dàkkali lu dul lii ci barki borom Touba mësuma ñëw nag si cant yi waaye nag daf ma ñor lool ndax nëgë nii waroon na maa fekk ma war a liggéey waaye bi ma ko déggee ñaari fan nelawatuma amatuma dal la tax nag ma ñëw fi tey dama weccoo sama liggéey tey ngir bëgg a teew ngir liggéey Serigne Touba ndax bëgg a fayu Serigne Touba ngir sopp Serigne Touba rek sama xol sedd na guy man nag dafa am lu may faral di dégg si taalibe yi te gënaluma boo jugee loo wax nga ne barki Serigne Touba booy wat nga ne barki Serigne Touba barki Mame Cheikh Fall ak keneen ak keneen ak par rapport li may gis ci yow loolu pour man du ngëmu Serigne Touba surtout ñun soxna yi am na lu ñu fi wax sànq ci soxna Jaara Bousso man de man boobu man bu dul tey sax dafa maa fekk man dama dëggu nara woy si soxna jaara buso man dama wat dama cee dogu caaxaanu ma ci foowul ma ci du lu ngeen fi toog na ba niki démb sax si midi amaguma ndigalu pour ñëw fii waaye lépp damaa topp ma soxna ngóone sama rakk la ma ne ko sama ñëw wóoru si ndigal lay déglu ba pare bu ma fa ñëwee liggéeyal sëñ bi te sama boroom kër waccu ma euh, joxuma ndigal zéro la te jigéen bu nekk ci ab néegu sëy ñett yii nañ ci nekk mooy jaamu yàlla moo jiitu topp ci ndigalu boroom kër gi ak woor weeru koor gi fay ngantu gi ak tamit julli juróomi waxtu yi yooyu boo ko amee boo ko jëfee sa lay wax ndax am nga ci fayum la waaye boo ko jëfee mën nga am yàlla ëllëg boo faatoo jarul sax ñu lay jooy nañ lay dolli ñaan man de man ragaluma faatu ba néegi nii ñi ñi ñuy toog parce que saa su ne maa ngi koy waajal ba ñu xasee juddu pare nañ ci juddu la ca des mooy waajal faatu gi ñun soxna yi dafa am lu ma gis ci suñu dëkk bii loo xam ne bu ma sañoon ci barke borom Touba ñu jublu ci mooy wàññi foogi wàññi mbóog bi ngeen baal ma nag ndax dégguma wolof du ma wolof cent pour cent séeréer la nañu wàññi foogi xam nga lu tax tey jii bu dee alxames ak ajjuma boo taalee télé jàppal nangam tey de tele neexut ba pare bu ñu jógee ñu ne barki Sëriñ Tuuba lu tax télé neexut parce que lañ ciy wax neex alxames juma doo fekk benn bu fekkee téeméeru borom kër la ak soxnam soxna li ci ëpp doole quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ña nga ca beneen xibaar wàllum diine ca film ya mu yii ñuy topp nii du ñu topp fële de fii rek la ci jëliwuñ ci lenn amuluñu benn njariñ waxtu film yi waxtu julli la dimaas buñ ko naree tegaat ci julli la néeg yi bu timis maasee dootoo déggati sa kët ndax ñëpp a ngi concentré wu ci télé bi weer bi ñun jigéen ñi am nañ ci ndaje yu bari bu matul fukk jege na fukk te dañuy jël dañuy jël yére yi nga xamante ne moo gën a cher sañsee ko di kat yóbbu di woddu loo xamante ne moom lañu ñu war a toogee suñu biir néeg di ko fa yóbbu di wàññi suñuy cër ngeen jéggal ma si loolu sax loolu yëpp fii lañ baax ñu topp te xamoo ndax boo koy lañ lay jëlee yóbbu wala déet kon tee ngaa nekk ci li neex sëriñ bi ndax suba waay mel na ne yëfi yi la te euh, ka ca nekk rek a wóor te xam ngeen xanaa xamu leen ne am na am na mbaax gu baax am na mbaax gu bon am na mbon gu baax mbaax gi baax mooy baax gi nga baax ba pare yéene ci ñépp mbon gi bon mbon gi nga xam ne si mbaax gi nga xam ne si moo bon mooy dangaa baax ba pare yemale ko ci sa bopp moom nag dafa baax ba pare yéene ko ñépp gis nga ci waxam bu njëkk maanaam am na kuñ doon wax ci saxaaba yi ku ñuy wax xalxamata bi muy sukkuraat waaye ku jiitu kooku dañuy wax ne am na koo xam ne ci saxaaba yi euh, jigéen la bokk jigéen la joo xam ne dafa doon dafa dafa doon war a am fu mu doon dem waa baayam dafa feebaroon mu yónnee ci fekk jëkkëram tukki mu doon yónnee ci yonante bi ne ndax man na maa dem seeti sama waajur mu ne ko déedéet ndax sa sa sa sa tàggul sa borom kër dafa génn xaaral ba mu ñëw feebar ba gën a yokk ca baay ba mu tàggoowaat mu ne ko déet na sa borom kër ñëw mu dem ba nga xam ne si génn àdduna yonante bi ne ko euh, sa waajur woowee tàbbal nañ ko ci tàbbal nañ ko àjjana ci nangu gi nga nangul sa ndigalul boroom kër ba tey it jël sa soxna teg ko ci sa kaw waajur ni mu mel surtout wu jigéen waajur wu jigéen ñu bari dañ koo bàyyi wut xel ak am doole fi mu toll dañ ne la boo doon ñaanal sax say waa sa ñaari waajur njëkkeel ci ku jigéen ki ñaar ñëpp am am doole wala taqul lahuma la sunu borom wax uffin booy wax sax bul bul bu leen bu na nga wàcce sa bopp bu baax a baax bu leen wax baat bi baatu uf ñun olof dañ koy jël di ko di ko utiliser lu bari te fekk alxuraan da ko wax wala taqul wala taqul lahuma uffin loolu alxuraan wax te ñun baat boobu dañ koy wax lu bari surtout ci nit sax bu koy wax ak waajuram day bari lu mu koy wax sax lu bari yonent bi yàlla dane ko booy wax ak say waajur na nga wàcce sa bopp nga xam ne xalxamata bi mu demee ba nga xam ne toll na ci sukuraat mënta wax baatub laa ilaha illallah yonent bi da ne kii lii ko dal lan la saxaaba yi kenn ku ci nekk waxloo na ko laa ilaha illallah mënu ko te mi ngi war a ñibbi tey këram gu mujj ñu ne ana ndayam ñu ne mi ngi fii bi mu ñëwee mu ne ko kii lu ko dal ba mënta wax baat bi mu ne bis de dama doon wax ak soxnaam mu jël mu faral soxlaam soxnaam ci sama kaw te xoolal léegi loolu ni mu bare mu ne dafa jël soxnaam yëkkate ko teg ko teg ko ci sama kaw ba soxna si moo mooy am dëgg ci sama kaw yonent bi ne ko boo ko jéggalut fii danañ ko lakk fii bay boo ñu lakk ko fii nde bu demee fële dañ koy lakk ñu commencé wut am am euh, ay mat ngir taal ko ndax ndax sawaraw fii moo gën wa fële soxna si taxaw ba yàgg xel mi delluwaat ci ëmb ba mu ko ëmboon ak coono bi mu dajoon ci moom ak jigéen ni muy xëre ci doomam mu yëkkati ko teg ko ci penkam mel ne comme nam juddoo woon ne ko jéggal naa la jéggal naa la rek baat bi déclenché laa ilaha illallah muhammad rasulullah mu ñibbi àjjana kon soxna si jër jëf jërëjëf wasalaamualeykum wa rahmatullah euh, àdduna du dara sëñ Aliou Mbaye ne woon na euh, loo xam ne ci sobe nga njëkkee te ci medd ngay mujj kenn ku ne xam na ne amul njariñ àdduna du dara lii soxna si wax film yi dañ koo topp te film yi ñi koy joué seeni doom a ngay jàng ñun nag sunuy doom mënatuñoo jàng dama mas a toog tey ba am bis ñu ne ma ah doo ñaanal gars yi ngir ñu ñu at mi ma ne leen nañ nañ njëkk nañ njëkk a góorgóorlu ci leçon yi ba pare waaw nañ bàyyi internet bi bàyyi télévision bi soo ko defee li ngay jàng dana la dugg ñi ñuy roy duñu dara kon jërë jëf ñu tàllal ñu ñu defoon ñaar bu ko defee rek jooni am am na kàddu yu ma am ma jotoon ma muy wax liggéey bi kenn ne bàyyi ko ndax soxna si dafa da ca lu bari mooy képp koo xam bëgg naa tàbbi ci kuréel gi muy góor yàlla wala muy soxna xamante ne ay soxna danañu jël sa numéro fekk am nga borom kër ko laaj ko ba ba nga ñu xam ndax am na digalam tàbbi ci kuréel gi wala déet ndax doxewul kat moo xam ne ku ñëw rek nga tàbbi ñu bàyyi ci noonu te li ngeen bëgg bëgg nañ lépp a sell su fekkee da ngaa borom kër yi nga na nga bëgg a bokk ci moom nanguwul it bu yeboo ko toog ndax boo ñëwee duñ la boole ci kii ndax bëgguñu kat. ndax dañuy bari yoo xam ne dañu ne ñoom kat waa kuréel ga tax nañ ba soxna yi toogatuñu wala de jëfalatuñ ma lii talatuñ ma yor yor mel. ñu mhm. bëgg nañ kat képp ku fi yore da ngay nekk royaay royaay fan ne mhm. te loolu yitte jooju kat dañu am mhm. kon ñoo ngi koy fàttaliwaat bokk taal bii bu baax a baax képp koo xam ne képp tàbbi ngeen danañu jéem a laajte seen coordonnées fekk am ko borom kër bu gëstu la su fekkente ni amu borom kër it danañu gëstu ba am lu leer ci waajur te doo ko mën a ànd ak yow rawat na soxna yi bu dul ku yàlla xam ne tamit ci bari responsable la mu ngi dugg ci moom kon kooku jafe ba ko soxna yi daal loolu ñoom lañ koy leeral loolu la ñu doon jërëjëf jërëjëf daaw nag neewoon naa ngeen bind ma ci daayira bi ngeen waaw yow waaw maag sëñ Bass ak sëñ Fall waaw bu ko def bu déwénee jàmm bu nu fi yàlla fekkee lay déguisement bi murit nag nag ma ko fàttali barki sëñ Tuubaa damay sol déguisement waaw bu soobee yàlla yàlla nañu ko yàlla fekkale waaw te daayira rek billaahi jàmbaar dëgg ngeen waaw rek ngeen di am tàmbali ci sëñ Tuubaa rek ngay yem ba bu leen dara fëkk ba ngeen génn sëñ Tuubaa bu leen ko dara jaral ci àdduna ngelaw li nag bari na su ma ko waxee mooy saytaane daa jóg te doole ju masoon a am jamono ba keroog àdduna yi tukki day gën a am doole te jamono jii la bari la dooleem gën a yokk kon nañ góorgóorlu ngoy fi nu ngoy Seydi El Hadji Malick nee na képp koo xam ne si yaa ngi def lu baax di yéene lu baax di wax lu baax nee na boo séenee euh, seytaane ci sa kanam nee na doxal doo ko dab mukk mu ne bu fekkente ne yaa ngi wax lu baax di jëf lu baax nga geestu gis lu bon ci sa ginnaaw doxal du la dab mukk kon nan góorlu euh, sëñ fàllum Mbaye mii nag laa bëgg mu def ñaan ño ñoo bokk sëriñ Atex sunu rakka mm, ëppalewu ko dara ci fama bokk dëgg la maa ko ci jiitu maa ko jiitu ci ci àdduna ci saayir waaye ngëneel yàllaa ko yor inna akramakum indallahi atqaakum yàlla rek a xam ko gën moo tax ma ma tànn ko ngir mu def ñaan ci sunu kanam ci kanamu xalifaam sëñ bas ngeen di leen ko dénk nag bu baax ngi ñu jàpp ko te jàppale ko te it bu bu ko buñ ko xeeb ci leen waaw buñ ko xeeb ci leen ay maamam jàmbaar lañu woon tubaarkàlla ci bépp côté kon nag la garab la fa daggee rek moo fay jebbee waxuma sama bopp nag duma ci dara duma ci leen moom la Amen. auzu billaahi mina shaytaani rajiim laa hawla wa laa quwwata illaa billaah allaahumma salli alaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallam yaa rahmaanu yaa rahiim yaa bariyyu yaa kariim rabbi bimaa yasuufu xatfan axtaja bi jaahi hamdan liman lillaahi xad lajaa hamdan li rabbin kariimin laa shariika lahu sadri yawma nuurun saalihin alaa muhammadin salawaatullaahi fi abadihi alayhi fi asbihi kulli bihi kalaam ahduhu ilaahi lazii hammat mawaahibuhu li jumlatil xalqi maa yataharaman naadaytuhu jalla man wa karamani takrifatu kullu man rahmaanu xabli jamii'an rahmaanu xani sharri man furqaanu xuddumatal المصطفى حمد لمن سدتي وترحم من خلق من جده وفتح يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا من جل خوالي ارحم جميع الورى يا هادي الردى ما هود ما ختنا هرخل من در بجاه عبدا لمن لله حجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام وسلام جم على المرسلين والحمد لله رب العالمين tàggu yàlla tàggu yonent bi mucc ak ndimbal ak saxaadata daaray ni defaru biir ak gubbiti defaru si kaw defaru si suuf defaru si kanam defaru si ginnaaw yàlla tàllal nañ suñu loxo dénk la ko yàlla nag nga yërëm leen te axal leen àjjana waaye fàttew nu hôpital yaa kër yi nga yërëm leen te fëgg seeni bopp yëkkati leen kartan gi nu amit ba daje fi di liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak sama ñaari wasale yi toog yàlla na nga leen yàggal ak ndomba gi nu yor di ko liggéeyal seen baay ba nu mën a nekk seen ginnaaw jariñoo ko barke Moudou Moustapha barke sunu maam Aliou Mbaye Koor jërë ilayka ya xayral bariyati salaam xadimikal si kafaytu mala